مد الحياة بما ترضاه من عمل ولتهي قلبي بإيقان وتمكين بقي السلام عليكم ورحمة الله bu ngeen gisee sunu jataay bi ràññee xarkan yi nga xam ne seen yitte yëpp mooy jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi commission sociale bu Touba ca kanam ci njiital Serigne Moutara moom Serigne Abdoul Fattah ak jàmbaaru fàkk tëdd yi nga xam ne ñoom lay àndal guddi ak bëccëg mbokk yi weeru ramadaan naka jekk am nañ ci bés bu mag boo xam ne dañuy am yéene dimbale ay junniy junniy boroom kër mbokk yi gannaaw bu ñu defee recensement ci ñeenti xibla yëpp seet lenn ci ñi ko gën a yayoo daal di ci woo jullit yëpp nag ak fu ñu mën a nekk daal di ne bu kenn xeeb bu kenn yéem lu waaye am ngir lan ñu jàppale bokki taalibe yi nga xam ne nii yitte woon noonu lool ku leen dimbale. commission sociale nag naka jekk saa bu jógee am na jàmbaar yoo xam ne bu geestoo dafa leen di gis kenn ngi ni di sëriñ Cheikh Sey diplôme di jàmbaar joo xam ne noppi mooy qualité bi nga xam ne moo gën a ràññeeku ci moom ko xam li ko sunu borom defal nag mooy li Serigne Mountakha di wax ne nañu jéem a xam li xew nawoon fawoon. yëkkatiwaan na 30 tonnes ceeb ne commission sociale lii maa ko jàppale social ramadan te kenn du ne guléet at yëpp noonu lay def mbokk yi foo ko fekk ak foo ko seen muy dem Serigne Cheikh Seydi Prom ci social rek lay dox loolu nag mooy dëggi dëggi ndimbalal sunu borom ki yàlla dimbale mooy mu wóor na leen sunu borom dimbale na la ngay gestu ñi nga xam ne dañoo yitte woon ndimbal mbokk yi te mën naa bàyyi xel de. weeru koor wii kat bu ñu tàllalee napp bi xeetu palaat bu nekk nekk ci ak i baax baax na sa xel dem ci am na mbokki taalibe boo xam ne talu la ndogu ndax lan bawu ko ci kër ga. loolu tax ñu mel ne Serigne Cheikh Seydi Pouram ñoo tàbbal ci seen yéene ci lim bu takku ci ceeb lii nag mooy dëggi-dëggi jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi te yéeney commission sociale mooy ci ñeenti xible yi mu fekk leen fa. taalal leen ay waañ ba dootuñ gàddu seen siwo yi di tàbbi ci biir dëkk bi waaye daanu dajul suuf bu ñu royee Serigne Cheikh say diplôme ak ñi mel ni moom yaakaar naa ne danañu gën a mën a jëfe ndigalal sunu borom te mooy jàppalante ak dimbalante kon Serigne Cheikh Sey commission sociale ci njiital sëriñ Moursala ak jàmbaar yi nga xam ne ñoom lay àndal ñu ngi lay sant bu de la wax ne yóbbante bi yegsi na danañ ko yóbbu fa nga xam ne fa la war a dem mbokk yi. kon Serigne Mourtala jàpp naa ne lu mel nii moom ñëpp ci war a roy bu kenn xeeb bu kenn yéem ne ñëpp roy ñi mel nii jàmbaaru commission sociale yi. lii nag muy vidéo yi ngeen di gis ak affiche yi moom de bu sañoon kenn du ko ko defal te bëri na ci ay morom waaye nag commission sociale dañu ne laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam te it nag ak soññee lay doon yow mi nga xam ne yow sunu borom dimbale na la. fàggul na la loo xam ne nii doy na la ak say njaboot ba ëpp na la bàyyil xel ñi ci des kon lu waay am muy ceeb muy suukar muy diwlin muy koppar yoon yi ngeen ko daan jaarale ngi nii wala ca siège ba ca xayra bureau social bokk yi kon ay ca mburit bu kenn xeeb bu kenn yem ñu ànd jàppale commission sociale nga xam ne at mi yëpp mu ngi ci daara yi mu ngi ci barabu fajukaay yi mu ngi ci tabaxi nekk ak i bare bu suturukaay rawatina nag social ramadan bii ñu dëgmal mbokk yi jërëjëfati Serigne Touba jaaraama commission sociale bu Touba ca kanam muddal xayaata bi ma min amalin wal tuhyi qalbi bi iqaanin wa tamkiini